Real Megan Cat TV. dal leen ak jaamu ci xibaar vendredi 27 octobre mu mel ne rek li nga xamante ne askan bi soxla woon nañ ko rek muy def ab manifestation wala marche bi yoon nag marche bi nga xamante ne rek daal dinañ koy jàpp tey jii ci vendredi bi ginnaaw ba nga xamante ne rek 15 heures daal dinay jot tombé ak daal kon rek daal dinañ koy autorisé kon nag ñu bari rek ña ngay wàcc pour dem ca ngir fësal seen naqar marche boobu nag lan moo waral ñu koy def rek mooy fexe ba ñu libéré ñi nga xamante ne rek mooy détenu politique yi nga xamante ne daal dinañuy bari lool waaye rek daal dinañuy sonn loolu rawatina rek ki nga xam ne rek mooy président Ousmane Sonko mu nga xamante rek ma nga ci kon bokk ko euh, ñu ngi woo Sénégal yëpp rek ngir ñu mën a ratee boobee euh, a euh, kon tey jii la rek daal ginnaaw ba nga xamante ne rek 15 heures daal dinay jot ña ngay sàkku ci askan bi rek ñu def mobilisation bu am doole rek daal di fësal seen naqar ngir ñu mën a libéré ñi nga xamante ne mooy détenu politique yi